salaamaaleykum mbokk internetu Sénégal ñu ngi fii ci marché Sandaga euh, kanti yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak euh, gaaru arrêt El Malick bu Dakar dem dikk bi kantin ya fa nekkoon yëpp toj nañ leen léegi nag seen i borom ñoo taxaw nii di expliquer euh, lan moo waral loolu yëpp sëñ bi naka nga tudd. Mamadou Faye. Mamadou Faye oui. Mamadou Faye kantin yi kañ lañ ko toj. jour Kazu Rajab le lendemain du Kazu Rajab maanaam samedi si guddi gi ñu daal la ñu woo nañu ñu ngi toj seen place yi noonu daal lañ ci am. dañ leen woo donc fekku leen fi kon yéen a ngi woon ci. fekkuñu fi gardien ñun dañoo fekkoon ñu ñëpp daanaka dama doon màggal Kazu Rajab bi sunu vraiment ñu ngi toj ak demee noonu. si ñi industrie yi laa bokk si ñi maa nekk nee si angle bi fin euh, surtout si angle bi Thierno Dioboye ñu bëri miin nañ ma xam na ne Sandaga ñu bëri euh, affaire yi daal ni mu demee moom procédure bi mooy danoo màggali Kazu Rajab man euh, dañ ma maa woo Touba directement ma départ si guddi gi ak si si bi ay une la laa fa déparé 45 activités deux heures 45 passé une heure de temps qui est venu l'autre route bi ñëwee ci site euh, après si laa fekk euh, ñu baare fii ay dragon daanaka moom daanaka ay temps colonial sax loolu mosuma ko gis baare baraa keneen mbedd yëpp baare lépp kenn mun a jot ci site bi suñu euh, suñ ñaari collègues yi fu njëkk ñëw dañ leen a paqueté yóbbu leen rëbës àndanta na après nag si leen te ñoom dañ ni leen ñu jël suñ xaalis ñu ni du ngeen mu woo ñu ni di dugg léegi nag ñooñu bi leen yóbboo ñun ñu jot mujjee ñëw bindi ke fekke nañ ñu jël suñu bagage yëpp euh, yu nee na nag danoo dañ ko bindi def ko ci saaku lu nekk ci place bindi nañ ko ba def ko ci saaku yóbbu fourrière loolu la ñu wax daal. maanaam euh, policiers yi ñoo ñëw encadré waa ji waaye ñëw ànd ak xaw ñan la daal ay juré lañ sol ñoo ñoo yóbbu suñu bagage préfet tamit ñëw encadré leen ñu toj bagage yi indi seen seen seen seen pelle mécanique toj kant gi suñu suñuy ñun daal loolu daal lañ ci am quoi franchement. waaw mais ci état de droit yaakaar ne loolu balaa moo am euh, maanaam euh, am na loo xam ni li ñuy wax sommation jox nañ leen ko ne leen bés sàngam waaj leen dina ñëw dajji kanti ngi jël leen seen i bagages. ce qui est grave et dommage parce que ñun jotuñu sommation jotuñu avertissement rien du tout. xam nga kii ñëw nga xam ne dala fekk yow ngay liggéey mu ñëw jël martoom commencé di toj wàcce balcon doo jàpp ni nii lay def mais ndek da ñoom boobu ñu ngi am lu ñuy def te ñun yëguñu si dara bañ demee màggale ñu daal nañu woo nañu gars yi nañ fii yëpp man bi ma woo frère yi xool ñu jéem a génne kenn du jege funtali bii ma lay wax ni ba tey xamuñu suñu bagage fan lañ nekk parce que nee nañu bagage yóbbu ko fourrière foofu daal lañ ci ñëw jël ci bagage loolu la commissaire bi wax boobu ba léegi depuis daanaka dix jours ñu ngi nii en sommet si site bi. franchement kenn mënut a dugg bi baraa keneen fépp foo bëgg a laal ñu ne du fi koo bëgg wax ñu ne du fi. alkaat mbedd yëpp. mbedd yëpp daanaka daa pendant cent mètres dool joo jege doo laal ñoom ñoo lépp ñoo ñoo moñax a yi jël lépp ba àgg si kër gi. te kër gi daanaka dèjà wàcce woon nañ ko pare loolu kër gi lay la rek waaye su fekkee six Euh, kant yi leen bëgg su ndikkee ak ñun négociation waxtaan ndax man su ndikkee ba si man waxtaan sax damay d'accord ak ñoom. Euh, ñaata kanting la woon. kant yi vraiment c'est plus de une cinquantaine de kanting daal mën nañoo une cinquantaine bu nekk aussi amoon na ay marchandises yi ci nekkoon. mais absolument fii ay millions moo fi ay millions xaalis ak marchandise lépp da nekkoon fii ay millions la fi nit ñi man mii de xamante ne plus de cinquante millions. parce que ay takkaay lañ doon jaay loolu yëpp fu mu toll nii loolu dommage yooyu moom moo moo am fii. Unacois jël na xeex bi en même ndax ba ba leen cooc bureau bureau ba leen lan lan dal leen ñu waxtaan. def na médiation ak ak préfet def lépp wante dara sottiwul préfet daal moo nu jaay di lii préfet daal moo moo jaar ci kaw Alioune Ndoye jaar ci ñëpp moo nu not ba not not jaar na suñu kaw ba jàll daal si liñ mën a tënk wante Unacois as askaay assis ñëpp benn dànk lañ def tey ji Sandaga foo xool porte tout ville morte la. di wax ci turu association des commerçants du Sénégal yi nga xam ni Inaakuwa ak Asis ak ambulant yi ak Sandaga ci taxaw Sandaga ñoom ñëpp ñoo ko bokk ak Inaakuwa yeesal ci gàttal daal commerce mbootaay mbootaayu commerçant yëpp ñoo bokk di wax naqar bi nga xam ni moo ñu dal tey te sunu mbokk commerçant ni nun teg nu ko. muy kër gu nekk fii ci angle bi ay cantine war ko lu dem ci quarante neuf cantine mu jënd kër gi ni da koy toj war a defar centre commercial tax mu dem lëkkaloog préfet ñëw yàq cantine yi nee na nag ñoom joxe nuñ sommation waaye man mii am naa fa place mais man gisuma kayit ñeneen it gisuñuy kayit niñ ko yàqee nag metti na trop te dama yaakaar ni am na loo xam ni képp koo xam ni yaa ngi koy def bu la ko ngor may bu la ko doole maye sax ngor war la ko mën a xañ ngir jullit ak moroom ma danoo gam dem kastu rajab bii passé bu sëñ fàll bi vingt deux heures vingt trois ci guddi la préfet ñëw fii ànd ak ak yi policier barricade koñ yëpp cantine yi marchandise ya fa nekkoon ak yëpp kenn gisu ci dara lépp noonu lañ ko yóbbal même cantine xotti cantine sax ñoom lañ ko yóbbu feraay dañoo wut seen xale jigéen di dajji kànnaar benn par benn di jël marchandise di sol ci saaku ba pare yóbbu ko di nga xam ne magasin boo xam ne ay plaqué lay jaay ñii di jaay ay body ñii di jaay ay jean ñii di jaay ay portable ñii di jaay accessoire yoo xam ne ay portable yëpp ay toj nga sol yëpp ci saaku te am na marchandise yoo xam ne kenn du ko def ci saako ci carton lañ koy def xam nga portable kenn du ko ci ay saako ci carton lañ koy def ay portable yi habillage télévision yooyu ak euh, euh, gouverneur yi yooyu yëpp ci carton lañ kenn du ko def ci saako nga dajee lépp def ci saako te li gën a li ñu yàq ci cantine cantine yi moo gën a seer kër gi téeméeri junni yoon sunu benn mbéku commerçant intérêt benn nit tax nga toroxal junni nit loolu may yaakaar ni lii état bi xamul ñu mu demee te préfet dama yaakaar ni il mal informé su fekkee ni dañ ko wax ni mu demee réellement dina convaincre ñu ko jot ba yëpp waxtaan ba tuura teel a dantaan. waaw dañu seetlu ne cantine yëpp cantine yëpp tëju. Euh, lu ngeen nasoon la tey dafa waroon am manifestation am na parce que euh, dégg nañ ne alkaati ñoo na fi sànni ay lacrymogène lan moo ko waral. Euh, sànni nga bi ndikkee sànni lacrymogène ñun dañoo waxtaan suñ biir pour grève générale ndaxte soutenir la lii dañuy soutenir pour alerter état Macky Sall nag dañoo bëgg mu jot si lii warta gëmm warta nelaw ndax jamono Abdoulaye Wade 2007 bi lii amee Abdoulaye Wade dafa woote réunion daar daar palais tous les ambulances man si la ambila nekk soo ko am cër si mim réew Aliou Ndoye soo gisee si bii mu defar ko ambila yi sa greffe 2007 ba si ambila maan yooyu moo waral tey ji ba ministre de l'intérieur kere dafa wàcc dañ ko wàcc kon ñun li ñuy xeex suñu ak suñu la commerce mooy industrie réew li njëkk a dox si ndax liñ sañoon sax jii benn commerçant du déclaré biir port te grève bi nag dafa commencé tey waaye amul fu muy yem bu laajee suñu conteneur yi nekk ca port ba gars yi bloqué ko bañ koo fay dañ ko def li ñuy laaj nag ñu interpelle le gouvernement le président Macky Sall mi nga xam moo jabatu ñëpp ak soo ministre ak soo gouvernement ay njabootam lañ ñu suñu benn secteur informel suñu benn benn commerçant rek moo def liit te yaakaar naa ne Sandaga keroog bañ koy toj dañoo recensé ñëpp ñu jox leen ay place fee ba pare sa ko toj lii nag ñu ne noonu te lii du public c'est privé mais yaakaar na nag privé wërta ëpp doole public ba tax na ñu ngi laas appel le président de la république ak gouvernement bi ak Sénégal yi yëpp ak jullit yi nga xam ni ragal nañu yàlla te xam ni dañu dee ñu ragal si xool seen diggante ak yàlla ñu ngi toroxal ay gor fii ci sànd gi loolu nag moo war suñu sunu grève bii ñu grève tey te grève bi dafa commencé tey waaye amul fu mu yem. waaw Serigne Cheikh dañu bëgg xam ne léegi UNACOIS lan mooy taxawaayam. UNACOIS nag li taxam mooy moo ñu delluwaat na suñuy droit lépp lu ci yooyu lu laaj ñoom ñu ngi ci. ci soo ba léegi moom commencé depuis ça une semaine déjà ñoom ñëpp ñu ngi ci lu mu li mu laaj mooy nu suñuy suñu droit bu laajul rencontre président Macky Sall sax den ko def mais heureusement comme gouvernement bi dañoo ne Sédhiou mais information gëm naa ne yëg nañ ko policiers yi ñu ngi fii di tànn seen i bomb di indi sànni ay gaz ñun du ñuy ay gaz wuñ leen parce que xam nañu na la ni dañoo yor naa rek waaye bu dee mbooloo ñoo leen couplé bu dee doole ñoo leen couplé waaye baa doole du xeex ak buur nun population bi ci ay citoyens ñun dëkk bi daan suñu doole. mos leen a gis commerçant buy gerew ngi dafa ñàkk a soqi ko bu liggéey ay millions ba war koo jariñoo ak i njabootam benn mbokk commerçant bi jóge ci àll ba ni ko jógal ma toog damaa bëgg a doole sama alal damaa nekk millionaire bëgg a nekk milliardaire yow néew ji doole ji jógal ma doole sama alal képp ku ko mën a seetaan di ko dooleel te ngeen ni julli ne da nax sa bopp. waaw léegi nit koo xamante ni yow révolté wo doo délinquant yow doo receleur doo dara liggéeykat nga ay nit ñu bari nekk sa ginnaaw nga liggéey ba ñëw jël sa bagage foofu kañ ko yóbbu sa ñun dañoo ne jox leen sommation ñu bañ a jóg wala dara ndax dañ ñoo wax dem leen ñu jóg ñu bañ a dara lan moo tax ñu jël suñu barke yow fourrière fourrière pour lan fourrière lu ñu ramasse fay yóbbu ñu lan moo tax ñu fekk daaj yi daaj sa place xamante ne yow place nit ki lam fa def moo ko xam nga ñëw daaj def si ay saako roñ comme mais c'est mais am ci dëkk bi te yéen aussi ak municipalité bi maanaam wàllu maire yi yéen a ngeen absolument ba tey kii yi nga xamante ne maire moo ñu ko jox ba tey mi ngi valable te loolu sax la wax looloo ñu tegoon fii. te ñu ngi doon fay chaque dañuy fay dañuy fay sunu euh, taxe municipale. léegi ban taxawaay la ci maire bi am. maire yi moom franchement man taxawaay bi mu ci am man vraiment man xaw ma ko parce que moom bu dee moo ñu teg fii lii bu amee waroon na ñëw taxaw na kat ñii maa fi teg wala dara mais maire bi moom pour te dire vrai moom dafa seetaan waaw parce que ba tey gisaguñu mu def benn réaction waaw noonu daal la demee waaw. léegi nag euh, ban appel ngeen di lancer kilifa yi. Euh, wala boog euh, seen mébét lan la lan mooy xew après. waaw waaw fu toll nii ñun ñu ngi si ginnaaw waa Inakoa jàppoo Inakoa jàppoo ñoom ñoo porté combat bi ñu ngi seen ginnaaw vraiment action ñuy def yëpp ñoom seen ginnaaw lañ nekk moo tax sax lu si bëri ñu mën a ñëw ñun wax nii la ñuy def dara parce que ñoom vraiment ñoo porté combat bi. te ñoom franchement ñu ngi si def taxaw am na si taxaw bu am solo boo xam ñoom vraiment ñoom taxaw nañ ko ci quoi waaw léegi fu mu toll nii nag tey si suba dañoo ñëwoon gis nga marché bi yëp yaa ko yaa ko gisal sa bopp kenn ubbiwul. mais ñu ñëw toog fii mais fi lañ fekk lu ñuy ay ak ay grenades lacrymogènes imaginez loolu. def leen benn manifestation. mais quelle manifestation taxaw fi ñu taxaw rassemblé wu dañuy mën ko su rassemblé fu ñu ñëw fa daje fa ñu ñëw sa waaye dañuy gazé ay lacrymogènes mais lool sëñ bi doy na waar quoi. assis ak euh, INA euh, ACIS ak INA quoi. Euh, ñoom ñoo tënk. bi bi mu këtt nee jon rek ñoom leen gis mooy ñoo ñoo booba ñoo nekk suñu ndey nekk suñu baay booba léegi. ndax euh, fukki fan ak juróom ñoom nelawun yendalun si suñuy bëgg-bëgg la dox si suñuy jafe-jafe la nekk ndax li waral ñu ne assis wala assis mooy assisté inaakuwaa mooy inko mooy ginaar gi si dafa tiim ay nenam ñun ñooy cuji inaakuwaa mooy suñu nday ah ak suñu baay fi mu ne si jamono ji si wàllu commercial bi wax dëgg yàlla euh, def na benn dànk ba tax tey ji grève bi soo gisee mu réussir nii sax ville morte ñoom ñoo ñoom ñoo ñun ñoo ànd ak ñun si xeex bi ba tey ñu am résistance. jël nañu huissier def na rapport constat kantineen fa yàq yëpp def na ko rapport bi jël nañu sunu avocat war koo xeex ci ñaari wet yëpp xeex ko bi xeex ci tribunal luñ ci yoon may nu jël foofu lañ toll. xeex bi daal combat la boo xam ni c'est la guerre balay neex de sax mondial te foofu lañ toll. Ah, suñu daal lañ te yow tey benn kantin ubbiwul tey la yem. wala wala boo xam ni lancement la. li war a lancement la boo xam ni yaakaar naa ne war na réussir quatre-vingt pour cent ndax Sandaga mooy Sénégal Sandaga li commencé Lamine Gueye Émile Badiane Jean Jaurès Ponty Malick Lamine Gueye ñoom ñëpp tëj tey comprendre nga am na restaurant yu doon jaay añ sax dañoo làkk di solidarité jaayuñu sax añ ngir noonu awse yi doon jaayi brochet sax jaay jaayuñu tax ngir noonu ngir solidarité comprendre ga loolu lépp am na leneen nag mi ngi ñëw ndax moom lu mel nan lu mel nan li ñëw mooy moom mi nu xeex ba yàq suñu alal xeex ko ci benn bis xeex ci une semaine da koo xeex ci ay fan. noonu tamit den ko xeex ci ay ay bis xeex ci ay weer xeex ci ay at kenn lu jot suñuy droit foofu lañu toll. président wooteel ndaje daar daar alerte lii te li jëmul kër ndax ñun say ñun citoyen leen duñ malien duñ duñ guinéen duñ duñ duñ lenn fi leen juddoo suñuy bàyyi sa guerre 14 18 ba jamonoy sëñ ab sëñ Tuubaa ba léegi ñu ngi fi. kon ñun suñ lépp fii la mun ñoo daw yet jëm fenn la sëñ Abdou waxan del ñaan gaal gi mucc bu ñaan sam ëmb mucc suñuy ñaan la sëñ Abdou waxan la ñuy ñaan yàlla na Sénégal ñëpp am ndam yàlla na Sénégal mucc yàlla nañ musal si ay wante lii ah junni doomu aadama la la yóbbu à sommet junni doomu aadama la yóbbu à sommet ndax te lii ñu nekkan fii di suturlawu du man du saam du keneen yàlla la moo nu indi woon fii te yàllaat ëllëg it yàlla lan yaakaar yaakaarum si leen nag loolu yàlla ndax lii dafa lu trace bu jaar si ñun jàll la ëllëg am na tey am na suba am na ginnaaw suba am na te tey da ngay aaye wal sa moomi ëllëg keneen aaye wal sa moomi adduna loo fi gis la buy continuer rek bonne continuation benn nit est-ce que mën na ñëw moom war a yàqal plus de cinquante pères de famille ay responsable moom mu nekk si jàmm ñu nekk si fitna depuis dix jours ñu ngi si fitna dañuy xëy rek toog suñuy xale yi fu mu toll nii dañuy xëy toog léegi moom ñu si jàmm ah police ñëw moom di koy xeexal ñun ñu nekk si fitna loolu daal la mbir mi demee moom waaw. voilà mbokk internet yi euh, nga seng yu ñuul bi ngeen gis sama ginnaaw. mu nekkoon euh, batiment bi nga xam te nii moo defoon cantine yi commerçant yi di wax léegi nii mu nekkoon nee nañu pratiquement ci juróom fukki cantine yoo xam te ni euh, ay Sénégalais ñoo fi nekkoon defi seen ñi jaay ay takkaay ñi jaay ay livres ay chemises ñi ay yooyu nag waroon toll ci juróom fukki cantine moom la gars yi toj. ki ko toj nee nañu borom kër gi la ànd ci euh, ak euh, ndigalu préfet ak alkaati yi mu àndal ba ñu toj cantine yi léegi nag euh, moom la commerçant yi doon jooytu ba gis ngeen tey yoo alkaati yi ñu ngi fi woon bëri fi lool sànni leen ay lacrymogène parce que tout simplement ñoom commerçant yi nee nañ dañ fi daje woon tey jii di ñaxtu pour xam seen bagage yi ñu amoon fan lañ ko dugal donc tey Sandaga mi ngi noonu tey euh, marché euh, marché euh, marché amul ci ci ci Sandaga bi ñëpp wàcc seen seen i boutique toj seen bunt di ñaxtu di jàppale seen bokk commerçant yi nga xam te ni ñoom la ñu toj seen i cantine fii ci Sandaga.